bi euh, bokk na ci euh, démb wala boog la grande actualité muy dialogue bi amoon foofu ca euh, palais de la république président Macky Sall woote ko. waaw démb ca palais de la république ñu bari ñi ngi doon teewlu di déglu la nga xam ni moom lañ fay waxtaane parce que dialogue bu nga xam ni bi ñu ko sumbee ñenn ni dañu ni duñu ca dem ñenn ñi jàpp ni dil moom moo am diggante ñi nga xam ne ñoo fa nar a dem ak président de la république. mais démb wax dëgg yàlla ah la ñu fa dégg ay kàddu yu am warma la mais kàddu yu ànd ak fulla ak fayda parce que ña fa daje ay kilifa lañu te ragal lu ñu Macky sàll gannaawam nekk ñu fa yi tamit di ko caresser dans le sens du des poils lépp lu nga xam ne préoccupation la wax nañ ko ci fulla ci fayda ak ci respect li nga xam ne tey moom la ñu doon déglu ak di ko xaar ci ñi nga xam ne ñoo fa daje woon dégg nañ ko fa mbirum troisième mandat wax nañ ko fa am na tontu bu nga xam ne président tontu na ko ci nee na leen amul lu ñuy nëbb amul tabu nañu wax lépp nee na itamit mbiru troisième mandat bi nañ ko ci dugal ci terme de référence nañ ko dugal ci waxtaan wi nga xam ne moom la ñu war a waxtaane lu jëm également ci beneen mbir muy code électoral bi ak démb maa ngi koy wax ndëgg sërëx yi nga xam ne nekk na ci moo xam article L vingt neuf article L trente et ak article cinquante L cinquante sept yi nga xam ne pour tey ñu rendre quelqu'un inéligible dafa yomb ñi nga xam ne yi tamit yoon dal na ci seen kaw ba actuellement nii mënuñu bokk ci élection yi teg nañ ko ci taabal ji ni ko président ne ñëpp bokk je pense que ci fulla ak ci fayda wax nañ ko li nga xam ni moom la ñuy xaar ci yëf yi beneen bi ci des également moo di ni euh, ñi ñu tëj ci kaso yi dañu jàpp ni ay euh, détenus politiques lañu wala ay détenus d'opinion loolu yi tamit waxtaan nañu ci teg nañ ko ci taabal ji am na yeneen mbir yu nga xam ne soxal na askanu Sénégal yu ñu teg ci kaw taabal ji yu bokkul sax ak politique donc ça veut dire que un large tour d'horizon mm-hmm. des préoccupations des Sénégalais wax nañ ko ak luy décrisper situation bi nga xam ne ci la ñu nekk nii mu di nii réew mi nekk na ci tournant bu décisif nekk na ci njàqare ndax tey ku nekk xalaat na jafe-jafe yi nga xamante ni si la ñu nekk naka la ñuy def ba génn ci gute gi naka la ñuy def ba génn ci am na ay proposition de solution yu nga xam ne am na fa kon tey dama jàpp ni ña fa daje woon di ay kilifa la leen fa yóbbu woon wax nañ ko taxawaay ba ñu war a taxaw pour taxawu askanu Sénégal taxaw nañ ko. ci fulla ak ci fayda ci respect ak ci dignité parce que am na ñu nga xam ne ñoo ñoo nekk nañ fa di ay kilifa aada di ay kilifa diine di ay kilifa ci wàllu politique ak ci yeneen wàll ñoom ñëpp je pense que li leen war def nañu ko mooy dem waxtaane réew mi parce que réew mi am na fu nga xam ne bu ñu fa tolloo ni ko euh, Momar kii di waxee ni dañ ko. dañ koy pencoo waaye kenn du ko paccoo démb Momar Samb pencoo nañu ko waxtaane nañu ko te ñi ngi jëm ci li nga xam ni moom mooy atelier yi pour gën a mbiral lépp la fa nekk mm-hmm. moo xam Idrissa Seck Khalifa Sall euh, euh, grand sëriñ ñaari grand sëriñ yi la nga xam ne wax nañ ko fa euh, Cheikh Bamba Dièye bu ma limee sax xëy na dafay gudd mm-hmm. mais ña fa intervenir ñëpp dañu ñëw wax ak Macky Sall président de la république. mu tontu leen moom tam ci fulla ak ci fayda. beneen bi nga xam ne aussi wax nañ ko mooy président dafa am ñaari posture mooy d'abord posture ki nga xam ne tey ci wàllu dialogue politique bi xëy na chef de parti la mais am na beneen posture bu nga xam ne nag mooy le président de la république mu xamal nit ñi ni nag du ñu bàyyi réew mi du dugg ci guta du ñu bàyyi kenn di ko destabiliser li nga xam ne mooy l'état de droit ñu taxaw respecté ko leneen li nga xam ne nag euh, Fati moom la ñuy xëy na fa laay jeexale mooy beneen daje bi amoon parce que dafa amoon ñaari dialogue muy dialogue bi amoon palais ak bi nga xam ne moom la ñu tuddee dialogue du peuple ñu tere ko tere bi ñu ko tere xëy na ca place publique ba mën nañu comprendre ni démb. Mhm. la situation était tendue et que des troubles même il y en mhm. donc risque de trouble de à l'ordre public euh, amoon na parce que les gens. dañu décider woon ni dañuy dem jëli ji ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko. Mhm. indi ko ci dialogue bi. ça on peut le comprendre que préfet bi compte tenu de tous les éléments d'appréciation qu'il a mu ne euh, day tere loolu. mais bi nga xamee ne tere nañ leen ko ñoom aussi en républicain. en toute responsabilité ñu nangu loolu retiré wu dem fi nga xam ne mooy siège wu mhm. euh, euh, Malick Gakou président Malick Gakou mais foofu yaa xayti mu laa ni foofu c'est c'est un endroit privé mhm. une réunion privée taxaw di def déclaration je pense qu'il y a eu excès de zèle ñu fekk leen foofu mhm. ni leen sax déclaration doo leen ko fi defee là je trouve que c'est trop c'est pas normal et il faudrait que aussi ñu respecter ak ak yelleefu ñëpp ci biir réew mi aw ñu commencé fii Malick euh, jeexale muy loo xamante ni quand même mun munul am ci réew démocratie réew mu mel ni Sénégal parce que euh, ay réunion surtout parti politique yoo xamante ne quand même ils sont légalement constitués am récépissé am siège. fu leen neex mën nañ faa dajee mm. mën nañoo dem ci hôtel ñu tegaleen ko parce que borom hôtel yi dañuy bañ ay représailles yu jóge ci nguur gi bu fekkente ni comme le préfet l'a expliqué fu la nga xamante mooy mën a tax <laughs> ñoom ñu daal di assurer sécurité bi mënoo mm. nangu ay nit euh, daje ci barab euh, ñu fa yónn surtout GIGN parce que Sénégal euh, ces dernières années dañu commencé sax bay banaliser yenn corps d'élite yi nga xamante ni daawuñ leen dégg ci ay caaxaan wala une foule sax jarutoon nga fa yóbbu GIGN comme si c'est des terroristes wala des criminels parce que lii c'est un corps de la gendarmerie gis nga ko xameewul leen sax parce que c'est des gens encagoulés parce que seen liggéey du sax ñëw di tas mbir loolu moom quand même xawma leen ko yebal wala nangam violé na li nga xamante ni mooy principe yu gën euh, élémentaire ci li nga xamante mooy respecté ay charte yoo xamante ni constitution

Diagne les deux grands sëriñ moom mi nga xamante ne discours wax na la malgré coow yi nga xamante ne amoon na seen biir et c'est une leçon qu'il donne aux jeunes aux acteurs yi nga xamante ni malgré réeroo bi benn moment bu intérêt Sénégal jógee nan bàyyi ñi nga xamante quand même nos intérêts personnels ak lépp loo xamante ni day menacer quand même suñuy dëkk pour ñu mën cee roy muy ay chef coutumier yoo xamante ni fii ci Dakar et képp kuy kuy lébu wala ngay doomu Sénégal te am nga fierté ci yi nga xamante di démb quand même am na loo xamante wax nañ ko fa ci et je pense que il faut saluer li nga xamante ne mooy seen grandeur mm-hmm. et tout le monde doit quand même s'inspirer de ça il faut saluer également yenn discours yi fa dégg parce que je pense que c'était c'était le moment comme président toog na nga toog wax mu dégg parce que moo gën tamit yenn booy booy côté wala ngay def politique chaise vide parce que am na ci yoo xam ne comme il comme il a pas de tabou mm-hmm. ku mel Cheikh Bamba Dièye on a salué le discours qu'il a ñun jàppee ay détenus politique ci wàllu ay liberté yoo xamante leen ko accordeel pour tension bi nga xamante ni mën a baissé Khalifa Sall aussi la même parce que situation bu difficile la nekk malgré critique yi parce que booy politique aussi des comme ni ko Macky Sall waxee il faut nga am courage booy déglu réseaux sociaux yi wala yenn commentaires yi moom doo dem parce que mm. am na ñoo xamante je pense qu'ils sont quand même ci yenn réaction indi mooy règlement de compte parce que ce qui s'est passé euh, à Grand comme ça assureur bi ne quand il a tiré sur présumé pyromane parce que bu nawee ba état bi mënul nekk ci kër ku nekk nit ñi ñooy fajal seen bopp te boobaa quand c'est un danger donc li nga xamante moom lañ gis fii ci Sénégal di cibler ay kër di dénoncer et délation bi nañ ko teg gars dem dialogue ji dialogue boobu quand même on est on ni même Ousmane Sonko malgré difficulté

Afrique teg nañ ñu gët waa bitim réew et sur les plateaux et même chaque jour Sénégal moo nekk ay débat en Afrique et partout et on espère que mhm. on va pas décevoir ñi nga xamante ne mooy les pères fondateurs jëm ci li indi jàmm ji ban yegg si fii ba tax ñu ñuy naw ci wàllu démocratie ak stabilité mhm. Marcel waaw di euh, comme sama naataangoo yi ni ñu ko defee rek di rafetlu euh, dialogue bi quand même sur le principe je pense que tey euh, maa ngi ko doon wax démb bu fekkee ne dañu demoon sax ba ay xeex yu gën a mag ci àdduna bi amoon te ñu mujjee ci ay dialogue ba mu mujjantal bi tension yi mujj jàll c'est c'est quand même à louer li nga xamante ne moom mooy dialogue bi jot a am avec les forces vives de la nation même si y avait certaines absences yi ñu ci mënoon a yi ñu ci ñu xaaroon leen d'ailleurs que dinañ absenté yenn ci ci représentants yenn partis politiques pour le coalition yi euh, on espère en tout cas que liñ fa waxtaanee di louer surtout li nga xamante ne moom mooy ce sujet sans tabou hein a évoqué euh, nga xamante du am waxtaan bi ñuy woddoo ci euh, ci ci boobule ci boobule rassemblement euh, donc je pense que ce sera sincère en tout cas ci ku ci nekk ci acteurs yoo nga xamante ne jot nañ leen réunir ci palais de la République et que bi si ñu jëm li ñu fay nar a jëlee dina dina dina dina njëriñ dina jëriñ askan bi li ma ciy déplorer rek xëy na mooy la déclaration du du président bu ñuy xamloo ne ne bu fekkee dafa bëgg troisième mandat euh, dëgg la waruñ ko xëy na nañ ko ko ñaan euh, c'est à la limite euh, je pense revenir un petit peu ci ay kàdduwam bu fekkee ne daf ñuy bëgg xam loo loolu léegi ndegem moom ci boppam il semblait clore le débat en tout cas ci li nga xamante ne moom mooy troisième mandat bi tey à la limite c'est comme si daf ñuy def ñuy wax ngir ñu ñaan ko rek mu bañ a a présenté wu ce qui n'est pas normal je pense que encore une fois yàgg nañ ko fi waxtaane mm-hmm. euh, constitution bi li mu wax leer na nañ maintenant c'est à l'appréciation euh, des uns et des autres en parallèle sama naataango yi tamit wax nañ ko mooy la non tenue euh, li nga xamante ne moom dialogue du peuple entre guillemets mm-hmm. notamment point de presse su Malick Gakou arrêté en pleine interview par par éléments xoolee bitim réew ñu yaakaar na ni ba léegi euh, réewu Sénégal ba léegi amagul démocratie bi ñu bi ñu doon wax wala dañu observer benn recul ci euh, ci wàllu boobu c'est également euh, assez assez dommage jamono ji nga xamante ne on ne cesse de le rappeler tension sociopolitique bi bëri na fii tey ñu koy fàttali tamit nekk tey la ñuy nar a am verdict ci procès Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi ci wàllu boobu noonu que le droit soit dit en toute impartialité et que Sénégal jàll ci leneen ndaxte mbir bi mu ngi bëgg mu ngi bëgg a incha allah euh, dinañ ko suivre euh, ci télévision euh, Futur Média 7h jot na ba tegal fukki simili ak juróom-ñett di fàttali.